amma baadu mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcc seeni wàccuwaay di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla yal nañu defal jàmm bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu waa alxaybu tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla yal na yàlla mottali seeni mébét incha allah yàlla dëgëral leen jàppale leen yeggale seeni mébét incha allah bi jaay sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokki àdduna bi yëpp di nuyu mbokki Sénégal yépp te di leen ñaanal yàlla yal nañu yàlla dolli sutura defal ñu jàmm bi jaay nañu Mustafa sallallahu alayhi mel ni koon mbokk yi ñu ngi ñëwaat tey jii ak sunu émission alxadis seen mbokk Pafa di ko defal muy sunu troisième édition. macha allah bi nga xamante ni mooy suñu émission alxadis di ñaan mbokk yi rek comme ni ko daan ñaane bu ñu dégloowee audio bi wala vidéo bi incha allah ngeen di ñaan bañ ko fatte partage te bés kolos moti notification bi pour macha allah ñu mën a am vidéo yi nga xamante ne ñooy ñëwaat di ñaan yàlla yal na yàlla defal leen jàmm. bu jaay neen Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu ñëw suñu xadis te nag xadis bi ñuy indi macha allah mbokk yi mi ngi aju ci sàkku xam-xam sàkku xam-xam macha allah li ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax bari na li ci borom xam yi wax it bari na kon macha allah yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man salaka tariqan yaltamisu fii ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna xadis bi gàtt na ci zahir waaye itam macha allah rabbi yaatu na wala gudd na macha allah ci baatin ndax li mu ëmb moo bari moom xadis bi ndax war na ci doomu aadama bu ne mu sàkku xam-xam te xalis bi fa wax ni euh, képp ku sóobu képp koo xam ne yaa ngi sóobu macha allah ci jëme ci yoon yoon ba nga sóobu nag lan nga cay def mooy sàkku xam-xam moo xam xam-xam bu mu mënti doon waaye xam-xam la boo xamante ni yàlla ko digle waaw waaw moo xam da ngay jàngi métier pour macha allah defar sa adduna moo xam da ngay jàngi xam-xam pour jëriñ nit ñi ndax lépp xam-xam boo munti doon na doon yàlla digle xam ne macha allah boo ko jàngee daa ci mën a jëriñ nit ñi jëriñ sa bopp mais xam-xam boo xam yàlla ko digle xam-xam ba ngay jàngi moo xam xam-xam bu mu munti doon waaw waaye xam-xamu diine macha allah amul xam-xam bu ko ëpp doole. mooy dem jàngi na ngay jaamoo sa borom dem jàngi macha allah nan ngay defaree euh, sa te diine kon xam-xam boobu macha allah képp ku soobu ci yoon rek dëtmal yoon lan ngay defi mooy sàkku xam-xam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana la dana la dana la dana la yombalal mooy yoonu aljanna waaw kon képp ku sóobu ci yoon pour sàkku ci xam-xam yàlla dana la tërale yombalal la yoonu aljanna waaw te itam mbokk yi ñu xam ni sàkku xam-xam farata la ci ñëpp waaw farata ci ñëpp mi ngi wax naan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kon sàkku xam-xam mbokk yi farata la ci jullit bu góor ak jullit bu jigéen te jàng du wees mbokk yi nga dégg nit ku ni la man léegi damaa jëm mag mënatuma jàngi déedéet jàng du wees mbokk yi waaw même boo demoon ba sa karaw weex tal tal tal mbokk yi jàng joo wàcc waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amee 40 ans nañ ko jàngal waaw kon du dangaa nekk mag rek ñu dootuma jàngeeti lu yitte yi bari bari bari bari lu coono bari bari bari bari lu alal ga bari bari bari mbokk yi macha allah fexeel jéem a góorgóorlu tuuti rek. pour jéem a jàngi xam sa diine yàlla subhanahu wa taala moo ni xam leen ba pare dooga may jàngu waaw te nag nan ngay xame yàlla kon boo jàngi jiwul nan ngay xame yàlla kon doo ko mën a jaamu waaw ndax julli balaa nga koy def ba nga ko jàng farata yeeg charte yeeg man duub yeeg lépp macha allah rabbi ak li nga xamante ni mooy charte yi yow moo war charte yi moo wér préparation julli kon na nga war a jàngi ba xam ko waaw ah, munoo ñëw rek allahu akbar allahu akbar rabbana walakal hamdu asalaamaaleykum te xamoo faratee julli xamoo sunnaay julli xamoo nga ne julli te boo mokkulul fatiha nan ngay jullee mbokk yi te fatiha danga koy jàngi kon bu fekkee ni yàlla nattu na la nekkee ndaw say waajur sàggane la nan la wala macha allah xëy na ci ci ci mbaaxu yàlla wala xëy na itam ci dogalu yàlla munoo dem jàngi ba nga nekkee xale jàng teewoon na la nga màgg nekk mag bul bul ni weesu na jàng kenn du ko wees mbokk ak noo mën ci toll noo mën ci toll macha allah rabbi jàng kenn du ko weesu waaw même bu fekkee da ngay wut benn temps mu ndaw nga wut koo xamante ni macha allah dana la xamal sa diine nga dem sàkku ji ko ndax yoon la goo xamante ni boo ko sóoboo rek yàlla dana la yombalal yoonu aljanna te jàng macha allah mbokk yi du wees de waaw kon yow miy mag yow miy gone yow mii gone nekk ci yoonu jàng nag góorgóorlu nga nga jàpp macha allah sa yoon mi nga nekk ndax yaa ngi ci yoone aljanna boo ko sàgganewul jàppee ko noonu daa am xam-xam di am yàlla te nga sellal ko it <coughs> ndax xam-xam boo bëggee mu barkeel dafa ànd ak sell waaw kon ñi nga xamante ni ñooy jàng xam-xam muy alquran wala fiq wala macha allah xam-xam boo xamante ni bu mu mënti doon xam yàlla ko digle nañ ci góorgóorlu macha allah yow mi ci nekk yow mi ci nekkul nag te te te te raw na la ba nga nekkee xale kon ba nga nekkee mag góorgóorlu nga wuti ku la jàngal góorgóorlu nga soobu yoon pour dem jàngi wuti xaalis baax na lool daw dépense baax na lool lépp farata la waaye itam dawal si loo defal sa diine ndax boo duggee sa biir bàmmeel dina laaj mukk lu dul man rabbuk maa diinuk ah man nabiyuk te yooyu te yooyu ñu lay laaj ba nga nekk ci àdduna jàngoo ko kon boo duggee ci biir ci biir bàmmeel bu tawféexul yàlla duggul mbokk kon doo ko xam waaw man rabbuk kuy sa borom mais da nga koy jàng faarifuuna qabla an taabuduni waaw kon da koy jàng foog nga jàng yàlla waaw yàlla mënoo xam yàlla moom kenn mënul xam léppam moom rek moo xam boppam moom yàlla waaye jàngil nga xam nooy yàlla. waaw ndax boo jàngul xam kuy yàlla kon bu la yàlla am na kon nga weddi ko ndax xamoo jàngi woo ba xam kuy yàlla kon foog nga jàngi xam kuy yàlla macha allah ren ba pare waaw soo paree nag nga jàngi sa diine ndax yow mi ngi jullit laa ba nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loo ci teg iqaami salaat mais julli balaa koy taxawal foog nga foog nga ko ita ay zakat azaka fu nga génne ko foog nga dem gëstu ji ko dañu génne azaka saw mu ramadan wooru weeru koor weeru koor foog nga dem gëstu ji ko lan ma waral weeru koor ndax bëri na ñuy nit ñuy woor te xamuñu fan la weeru koor jóge te xamuñu itam macha allah lan mooy maanaam weeru koor xamuñu itam macha allah weeru koor lan lay lan lay def ci ruux doomu aadama ñu ngi woor rek moo waral daa nga woor ba kor ga jeex duñ ci am dara waaw c'est parce que lax euh, dañ ni jëf ju mu mënti doon jëf ju mu mënti doon daganul si muskallaf bi mu koy jëf te xamagul te xamagul jëf ba la mu doon waaw waaw waaw laa yaxilu ci mukallaf bi an yafaala muy jëf fialan benn jëf xatta yaalam muy la ba xam xukm allah ci atte yàlla fii ci jëf ya ci jëf jooja bu ko xamul nag wa yasalu ne laaj al ulama bu xam xam-xam yi bu ko xamul nag wa yaqtidi bi bil mutabiina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yow mi yow mi nga xamante ni yaa dugg ci diin lislaam aj màkka war na la boo ko amee mais boo ko jàngulee noo koy defee ah, waaw kon yooyu yëpp foog nga dem foog nga dem sàcc sa bopp macha allah jot sa temps tuuti waaye bëri na tey jamono jii ñoo xamante ni ñu ngi lijjanti business rek business rek te lijjanti wuñ seen wàllu diine waaw dangay gis julli lay jot nit ñëw këpp këppal xamul nu mu jàpp xamul nu muy jàppoo xamul nu muy jullee ah xamul nu muy wooree xamul bu julleem yàqoo nu mu koy defaree xamul bu koolam yàqoo nu mu koy defaree ah, xamul njàpp xamul dara xamul sartee julli nu ko neex lay julli nu ko ñax lay def kooku lan moo ko natt ban moo ko dal maanaam mooy ñàkk jàng kon mbokk yi muy mag di ndaw ndaw mi ngi nekk ci tollu ci jàng na dem sakku ji xam-xam waaw xam-xam baax na de mbokk yi xam-xam baax na waaw xam-xam baax na lool lépp looy dugg boo ci amulee xam-xam rek loo def lu dootul bu baax muy métier boo jàng wala école la wala alquran la wala lu mu mënti lépp looy def te amuloo ci xam-xam la ngay def du baax maa la ko wax ndax doomu aadama. du def li muy li muy def foog mu xam ko mu mën ko def waaw ah, mais bu fekkee ni yow mi nga xamante ni macha allahu rabbi jàngaloo alquran xamoo sàrti julli xamoo farati julli xamoo lenn julli jàngoo fiq bis doot ñu ñu taxawal la ci ci ci ci kanamu mbooloo ñu la am jiiteel mbooloo ma nooy def moo koy rëccu rëccu la de waaw ah, ah, waaw te bëri mag ñoo xamante ni jamono ji ñu ngi rëccu ndax ma ñu nekkee ndaw fonk ñu jàng ñu dem ba nekk mag nag topp talatuñ ko ndax boo nekkee ndaw war a gëstu sàkku xam-xam foofu nga amee chance que boo nekkee mag ndax li ngay gën di nekk mag sa aaja ngi yokk sa jot mi ngi gën a maanaam sa ñàkk jot mi ngi say programme day gën a bari li ngay gën di màgg say programme day gën a bari ndax àdduna bis bu nekk rek ak programme bis bu nekk ak programme am kon yow miy ndaw te toll ci jàng demal nga gëstu di mbokk yi yow mag. te jàng fay la ba nga nekkee moom góorgóorlu nga jël sa temps as tuut macha allah nga dem sàkku ji xam-xam bu ko defee euh, nga mën a am loo dëgërloo keroog sa diggante sa am loo jaamu yàlla kon mbokk yi macha loolu ñu indi woon ci waxtaan muy sàkku xam-xam muy yoon boo xamante ni ku ko jël incha allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dana la yombalal yoonu aljanna waaw mbokk yi benn góor wax ni sàkku xam-xam. galaat gi mu am wala dee gu am nee na boo boo fekkee woon macha allah euh, junni junni junni rob yoo xamante ne ay nitu yàlla lañu nga fekke seen nga fekke seen nga fekke seen seen rob maanaam seen seen seen seen julle nga fekke ko yow mbokk mi nee na junni junni rob nit yàlla nee na dayob sàkku xam-xam noonu la toll wala mu ëpp ko waaw bi toog ci ronu ci ci ci ci keppaaru sëriñam gàddu aliwaam wala téeléem sëriñ bi di ko saa di ko saa alquran wala mu koy saa fiq wala mu koy saa xam-xam bu mu doon ci téere yi nee na dayab mi ngi toll ci junni borom xam-xam yu génn àdduna nga fekke ko kon sax xam-xam macha allah kon mbokk yi am na solo yaa ngi yàlla defal dégg ak topp macha allah di wax mbokk yi rek eh, comme ni ñu ko waxee woon rek ñu bañ a fàtte macha allah partage vidéo bi ak aimé ko allah. yàlla yàlla defal jàmm ak sutura yàlla na yàlla defal xéewal te yàlla dimbali ñu kàttanal ci jub rek ci yàlla subhanahu wa taala la ci mbaaxam ci dëng rek ci mbokk mi doon wax la ñu ngi jéggalu mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen